ëmb syndicat yi jàngalekat yi dal di nañuy jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi niki alxames ngir dal di dikkaat ci tolluwaay yu université yi ak it protocole d'accord bi dox ci diggante SAES ak gouvernement bi ñu amal ko juróom-benn fan ci weeru janvier bi weesu SAES di sàkku ñu ubbi université yépp ci nu mu gën a gaawee ngir ñu mën a dooraat jàng bi syndicat bi di sàkku it ñu dakkal calendrier école bi ñuy tëkkaleeg ak calendrier électoral bi. li ñuy seetlu daal Sénégal li fi li li nar a nekk règle maintenant mooy que saa yu campagne amee saa yu amee élection bi ci université loolu mënul sotti ñun lu ñuy wax mooy nañ ko ubbi tey suba ñu commencé jàngal parce que jàngalekat de ah jàng la xam politicien de politique la xam waaye ku nekk def lu mën nañu politique fan ñu bàyyi ñu jàng ñu ko ñu sécuriser université yi nañu sécuriser ndax si jàmm ak salaam parce que année bi de mu ngi bëgg a yàqu de. SAES di ñaawlu tamit ñi ñàkk seen jëkkër wala jabar te nekk ci personnel enseignement bi ba léegi mënuñoo jot seeni ndàmpaay ni ko loi bi waxee naam sax dañu leen koy dagg weer bu yàlla sàkk ñoom enseignant chercheurs yi ak chercheurs yi nga xam ne ñu ngi amal seeni yëngu-yëngu. Euh, bi ci njëkk mooy wàllu euh, veuve ak veuve enseignant supérieur mooy enseignant yi nga xam ne euh, génn nañ àddina seen njaboot yi am na lu yoon wax ni war nañ am ci wàllu pension. loolu yoon moo ñu ko may waaye boobu léegi euh, ñooñu nga xam ne seen borom kër yi wala seen soxna yi euh, génn àddina mënuñu ci jot. leneen li syndicat bi ëmb jàngalekat yi naqarlu mooy bloc scientifique ak pédagogique yi nga xam ne door nañu koo tabax 2015 ba léegi jamono ji pareegul te ba léegi équipé wuñu ko naam at bu yàlla sàkk bachelier yi di gën di yokk SAES moomee tamit ñaawlu na bu baax a baax ñàkk tontu gi nga xam ne bàyyeekoo na ci joriñ bi ñu dénk wàllu njàng mu mi. jëm ci wàllu programme recrutement 2022 2026 ñeel enseignants yi ak chercheurs yi